waaw waaw kii kan la photo bi suma suma papa la. Mhm. waaw kii nga xam ne nag mooy xool ci suuf noonu <laughs> man mii la ak eh, suma mag bu góor bi nga mhm. xam ne moom moom ma mag ñaari at. voilà bii nag mooy li may wax boobu ba France la nekk. d'accord voilà nekk nekk Bordeaux di fa jàng eh, di fa yokkaat jàngam parce que moom ci seen jamono eh, tubaab yi dañ leen tudde woon médecin africain. boo defaan médecine quatre ans rek ñu ne la jeex na mënoo continuer. ñoom nag ñu koy xeex mhm. yàlla def nag moom bi ñu dindee loolu euh, fekk na am na njaboot mu delluwaat France pour def voilà euh, cycle médecin huit ans ak spécialité parce que moom pédiatre la woon daan faj xale yi mhm. voilà donc mu doon ku vraiment ku ku ku nangu woon a liggéey xëy na ci moom la ñuy jànge liggéey sama yaay tamit doo doon sage-femme mhm. euh, foofa ca tàmba daanaka ñoom ñoo remplacé woon tubaab ya fa nekkoon ca ca année yooyu xam nga indépendance soriwul woon. Mhm. Euh, voilà et puis malades yi dañ daan ñëw sax ba ca kër ga parce que benn médecin boo xam ne bi diggante pratiquement Koungheul ba Bakel Bakel ba Goudiri Goudiri ba Kédougou benn docteur ci amoon. te il paraît il se déplaçait ci localité yu yu bëri. tey jamono jooju nekkul comme nii. Euh, accessibilité yenn localité yaa ngi koy wax. c'était très très difficile yan souvenir ngay ngay ngay ngay fàttaliku ci sa waajur bu góor. ah def naa ne ku ku ku amoon euh, euh, voilà euh, volonté jàppale doomu aadama mais médecin la woon. Mhm. donc docteur moom fokk nga nangu loolu day fekk nga mu nekk sa li tubaab naan vocation. sama yaay tamit réewle na voilà ñu bare bare bare. Mhm. <laughs> yaa ngi wax Kassé moom waaye rakkam mooy Mamadou kase mooy suñu DG defe mhm. naa ne. <laughs> suñuy nopp moom it euh, voilà dem naa sama yaay ci ñi ko teeru si àddina. àdduna <laughs> la bokk <laughs> tout à l'heure vous parliez de votre maman dama lay wanaale parce que moom aussi elle était sage mais bii dañ la gis dafa mel ne da doon sucer pouce de période. waaw loolu la woon nag xaw xaw xaw naa yàgg ak moom sax <laughs> dem naa ne la ma mujj def mooy undi uti bandal ko sama pour pour a. ah yow yaa ko parce que quand même euh, voilà kooku ci ah net yàlla moom. Eh, wàcc na liggéey il y trois ans. oui moom it sage-femme la woon bu. Mm-hmm. voilà donc man ci famille bi ñu ma yare mm-hmm. eh, liggéey daf ci amoon solo ak ak voilà nangoo jàppale doomu aadama yi eh, xam nga santé moom ci loolu lay doon. Mm-hmm. voilà donc exemple exemple boobu boo ko amee da koy moo lay ci ci loolu lañ lay yare daal maanaam li ëpp solo ci yow mooy ngay liggéey. gëm liggéey gëm liggéey da cee am solo ndax loolu noonu loolu laa gis ci samay waajur mhm. euh, après euh, voilà boo màggee it bëgg a def lu ni mel surtout def loo xam ne lii mën nga jàppale doomu aadama euh, ensuite nag ci la politique bi yegg si ñaar ñi dal di ànd voilà sunu buñ daan politique ñun à l'époque liñ daan tuddee la gauche mhm. la nga ca doon ut mooy vraiment doomu aadama gën a gën a jëm kanam voilà nanuy dundee gën a baax euh, voilà mu indil ñu nag ay tolof tolof souvent aussi alors balaa ñuy ñëw ci militantisme bi damay ñëw ci élève bi parce que bu muy euh, def ay recherche ci sa parcours euh, dañ la doon qualifier élève très brillante c'est vrai normalement moment boobu c'est vrai say waajur jàng nañ donc xëy na peut-être ñu bàyyi la école mais c'était pas aussi facile parce que aussi dañu nekk ci weeru sargal jigéen te dafa am ay barrières yu bëri yu metti yoo xamante ne dafay dal ci rawatina tout tout tout tout tànk yi bo bo boo ñuy nettali ci say ci say souvenir à l'école moment boobu passage bi depuis Tamba ak euh, fi nga xamante ne moom mooy Kaolack ba lycée Van Vollenhoven balaa ñuy ñëw nag parce que dina ñëw ci sport bi mais aussi dina ñëw ci sa militantisme mais souvenir yi lan nga ñu si mën a wax PM. waaw mën naa jàpp ne man xëy na ci liñ naan. privilégié yi laa bokkoon nag ni ko ni nga ko waxee. Mhm. sama yaay jàngoon na ak son papa donc dañuy xam valeur jàng école. Euh, nga des école kenn du la teel a maye ak yu ni mel. Mhm. mais bëri naa ñu ma bokkaloon classe ñoo xam ne macha allah seen xel euh, vraiment neexoon na lool lool lool. mais xëy na amuñu woon encadrement ba ca kër ga. Euh, mais surtout aussi ci njàngu jigéen man ci li ma ci jàpp sa papa jàppale la dafa am solo. d'accord lool lool lool xam nga bu njëkk ba dañ naan wax voilà xale bu jigéen foog mu mun togg foog mu mun raxas foog mu mun bale mhm. bu ko defee sa yaay ci yooyu la lay gën a sonale mhm. te boo defee loolu ba noppi nag après doo am dem jàngi pour réviser pour ak yu ni mel donc papa ji bu ci dugalee loxoom rek di encourager vraiment xale yu jigéen ñi euh, da ciy am solo man sama papa nag ku gëmoon aussi njàngu jigéen la woon mhm. bon yàlla dafa def nag ay jigéen la gën a am d'accord <laughs> Eh, am na am na juróom-ñeenti bant te ñaari ñaan ñaar ñoo ciy góor. d'accord waaye eh, macha allah ñëpp ñëpp jàng nañu. Mhm. Eh, ba mën a yor seen njaboot. donc li nga xam ne moom laa ci gis ne moo am solo mooy pàpp yi aussi vraiment ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale seen doom yi jigéen ñi. yaay yi aussi bien sûr. Mhm. yaay ji bien sûr. mais papa ji aussi comme yu ci bëri moo koy dogal ca kër ga aussi. Mhm. voilà di fexe ba xale bu jigéen bi am temps boo xam ne voilà Euh, dina ko mën a consacrer aux voilà am na am na ci solo lool lool mhm. et puis bàyyi leen encadrer leen gën leen euh, fital euh, xale bu jigéen papa ma koy may fit en fait man dama rappelle sama papa toujours bu daan wax mais góor ñi gënuñ ëppuñ leen xel ah, xel moom ah oui oui da doon wax ne góor ah, du affaire góor wala jigéen cerveau bu jigéen ak cerveau bu góor benn lañu voilà donc ça dépend rek jom bi nga ciy def ak effort yi xam nga bu ñu la koy wax fekk nga tuuti day tax nga booy màgg booy màgg da ngay ñeme. après ngay avancer dem ci classe yi. Mhm. di góor di raw góor ñi góor ñi di la raw aussi. nga mhm. xam ne du affaire góor wala affaire jigéen. voilà donc loolu it am na am na solo bu baax a baax a baax. ci ñi nga xam ne dañ yor njaboot gu jigéen. Mhm. Euh, voilà jàppale sa doom bu jigéen boo dee borom kër dafa am dafa am solo te nag souvent booy seet aussi. jigéen ñi seen papa sax la ñuy gën a la gën a jege mhm. ndax souvent mère yi aussi ñooy sonal jigéen ñi ndax dañuy bëgg aussi ñu jub uh-huh. voilà du ñu bëgg aussi yenn yi dal leen euh, donc loolu it am na am na solo waaye li ma gis ci génération bu bees bi aussi mooy mooy papa yi gën nañoo ouvert xam nga bu yàgg bu njëkk ba nag da nga daan ragal sa waajur. voilà mais léegi xale yi gis naa ne gën nañu ubbeeku gën nañu dinañuy gën a waxtaan ak seen njaboot. Mhm. Eh, ñu nit noonu lañ daan waxtaanee ak eh, voilà sunu sunu. say waajur suñuy waajur waaw. alors boo may wax ci sa caractère lan nga hérité de votre maman lan lay nekk. ah eh, soxna si moom it ku amoon kii la. ku mhm. amoon fulla la nag quand même. Euh, voilà euh, mais aussi defe naa ne ku bëggoon dimbali dimbale doomu aadama aadama la woon. cette générosité. voilà euh, bon kenn <laughs> doo tagg sa bopp waaye mm-hmm. bon lu nu am it dinañ ko jéem a bokk ak voilà askan wi loolu aussi ci moom ci moom lañ ko gisee ak ci sunu ay mam surtout man suma mam bu góor ñu naan ko Doudou Touré. Mm-hmm. moo doon chef de quartier cent à Gossas. fa jógee Kaolack ñëw Gossas installé wu parce que traitant gerte la woon euh, dem ba nekk fa chef de quartier mooy quartier bi nga xam ne fa la mairie bi nekk. d'accord voilà da daan accueillir xale yi daan jóge ci dëkk yu ndaw yi euh, parce que bu ñu xasaan ba am entrée en sixième du ñu am collège boobu sax kenn du wax lycée. bu ko defee moom dafa amoon voilà bâtiment boo xam ne ñoom la ko jagleeloon. di leen fa dalal voilà di leen fa dalal daan noonu ne nekk ay vingt trente. Mhm, mhm. voilà bu vacances jotee ñu ñibbi mais moom moo leen yoroon. kon boo gisee loolu aussi da xam ne bon euh, àddina aussi jàppalante fi am voilà doore ko ci sama maam boobu ak euh, wàcc aussi ba ci parent yi. d'accord voilà loolu nag ñu ngi koy xaw a perdre léegi bon léegi àddina. changé moo changé aussi. waaye loolu en tant que euh, africain waruñ koo te waruñu voilà waruñ koo waruñoo réer. Mhm. jàngal xale yi solidarité jàngal leen ne aussi wërsëg yàlla koy joxe. Euh, yenn saa yi nga ëpp wërsëg keneen. Mhm. Euh, par exemple boo juddee kër docteur. <laughs> kooku du ci sa coobare. sa chance la. Mhm. voilà ka juddoo ca kër béykat ba euh, xëy na ay waajuram du ñu am moyens yi nga am kon bu ngeen dajee war ngeen voilà am solidarité seen biir ak yu ni mel te ka juddoo ca kër béykat ba am na qualité yoo xam ne ka juddoo aussi kër docteur ba xëy na du ko am. <laughs> voilà c'est mhm. toujours comme ça parce que du rek une affaire matérielle. Euh, donc loolu euh, defe naa ne ci li ñu euh, ci li ñu am xëy na li ma li ma jëlul ci sama papa. mooy nga xam ne c'était sa force. mooy la patience. ah vous n'êtes pas patient. si si si un peu mais bon <laughs> lui c'était un homme très patient. très très c'était sa grande grande grande qualité. qualité. waaw kooku nag moom xam naa ne dinaa ci gën a inspiré wu. ndax évidemment li wolof naan. ndar xëyul sotti mhm. patience daf ci baax mhm. mais xëy na bon foofu la ñu bokkewul tempérament yéen ñaar